mais yow ban lan lan nga xalaat ci euh, la possibilité euh, qu'on vote une loi d'amnistie pour apaiser le climat sociopolitique lan nga xalaat ci loi d'amnistie boobu. moi je veux pas être catégorique dans beaucoup xam nga décision bi daf ñu bett. moi a la mais loi d'amnistie le débat s'est posé depuis depuis une semaine. Ah, nous, on n'a pas non, Non, ça, tu as parlé en tant que citoyen. Non, Yo, je ne vais pas bëgg wax la ay citoyen rek <laughs> boo léegee nga ne nga bi nee na te fii man ne porte-parole du gouvernement. non non non non non rek. <laughs> Ah. man man mu dëgër bopp bi may wax rek mais <laughs> man yoruma kàddu gouvernement te ba pare lii waxtaanee wu ma ko pour mu leer may mun a. te laaj na ah, quand même non xam nga dama ne li ñuy toog waxtaan. toog waxtaan dafa laaj aussi recul préparation nga xool nga nga segg mbir yi parce que c'est pas de décisions faciles parce que aujourd'hui quand même il y beaucoup de de malheurs dans ce pays beaucoup et, je je ne cesse de dire loolu laa gëm euh, partout le sang et le plus mauvais de témoins fu ñu tuur deret euh, effacé ko day metti donc xam nga bu ñu wax yooyu il faut ñu segg ko xool Euh, waxtaanee ko ci kuréel yi nit ñi sottante xalaat dajawaat ci kuréel yu gën a mag yi ñu ñëw ba jéem a jël li gën pour réew mi parce que aussi nag il faut pas que euh, chaque fois qu'il y ait des formes de raccourcis qui font que finalement euh, impunité appelle la récidive et cetera donc loolu c'est important moo tax ma ne c'est c'est tout frais il faut nit ñi gën ko waxtaanee gën a sottante xalaat gën a euh, xam fu ñu jëm euh, mais surtout ubbeeku bañ a fëgg dënn mais mais mais man man j'interpelle le citoyen et l'homme politique xam nga 2005 <laughs> dañoo voté loi Ezzan mhm. mu nekk une loi d'amnistie très contestée à l'époque vous étiez dans l'opposition amul loo leen yàqul euh, Ablaye Wade dem sax ba naan waaw Ablaye Wade dafay protéger waale boppam parce qu'il a les mains tachées de sang amul lu ñu waxul Ablaye Wade xaw ma ko wax de waaye mais vous ah. contre le vote de la loi Ezzan yéen c'était en 2005 janvier 2005. 2005 alors tey. ñuy agissé 2005 je venais à peu près à peine de commencer la politique. <laughs> d'accord mais vous étiez en politique <laughs> vous étiez en politique. léegi tey. ñuy waxaat waxu euh, loi d'amnistie. kenn moo ko wax ñun de waxtaanee ko wax dëgg yàlla. d'accord non non. mais lu ma waxtaanegul. non deux mille vingt et un bu ko waxtaanee bu ñu ñëwee. y a eu beaucoup de morts. oui ah il s'est passé beaucoup de choses. beaucoup de morts euh, beaucoup de dégâts beaucoup de. est-ce qu'on doit au nom de l'apaisement du climat social passer tout cela par pertes et profits surtout les crimes qu'il y a eu. Il y a eu des gens qui sont il y a eu des morts qui n'ont ça, moi, je suis pas prêt à les effacer. Des crimes de sang de cette nature, je suis pas prêt à mon fort intérieur. moo tax ma ne la le sang est le plus mauvais des témoins parce que même tey aujourd'hui si on l'abuse l'abuse par une décision judiciaire il faut qu'on soit le plus juste possible par rapport à la population sinon am na loo xam ne euh, voilà day des te loolu c'est vrai des gens parfois il y a eu pire que ça dans des pays à un moment donné en affrontant la vérité les gens ont opté pour le pardon mais je dis euh, nañ ko gën a waxtaanee li gën a am solo et puis peut-être sax xëy na ku ñu fal ëllëg ci ci di nga xool mais nañ ko gën a waxtaane euh, sachant yi gën ñoo gindi gën ñoo voilà mag ñi itam ñu waxtaan euh, jéem a segg li gën a baax ñu jéem a doxal loolu parce que c'est pas facile yow xaaroon décision bi bu ñuy xool jurisprudence pure keneen xaaru koon décision bi moo génn donc décision bi day fair naître de situations nouvelles des options yoo xam ne elles sont obligées d'être nouvelles ou orientées mais il faut ñu waxtaane ko mais en ayant benn filtre man loolu mooy sama en tout cas sama guide le filtre doit être l'intérêt supérieur de ce peuple loolu bu ñu ko defee ñun ñëpp dafa am par moment loo xam ne bi nga ko bëgg mais mu tënk la par moment ba bëggoo dara mais mu tënk la c'est comme ça donc man loolu laa gis dans dans l'immédiat il faut que les gens